dañoo constaté euh, que élèves yi de plus en plus euh, filière littéraire yi la ñuy fréquenté gaa filière yëpp a baax sax boo jëlee euh, maanaam ñaar fukki nit yuy def yuy jàng daanaka vingt cinq vingt cinq yi daanaka lu mat vingt cinq seulement ñoom ñooy tànn filière scientifique euh, lolu ci euh, moyen secondaire bi la secondaire bi bo demee université bo jëlé euh 100 yi manam ñaar fukk yi euh, téeméer yi téeméer yi daanaka li ci ëpp 80% ñoy filière littéraire donc lolu waral mu am ben déséquilibre Té xam Sénégal xamnañ fi mu jëm ci walum développement ci walum exploitation découverte ak exploitation euh, gaz beeg pétrole beeg dañoo soxla euh, ñu xarañ ci euh, ci ci discipline scientifique yi. waaw ndaje yu melni quand même muy journée académique carrière baax na ci amna solo trop parce que dina tax xalé yi gëna xam ñëriñu filière scientifique yi dina tax aussi. Euh, euh, bët bi ñu doon xoolee filière scientifique yi bët bi changé ñun aussi ci levier boobu lañ ñu mën a agir. waa lu baax la woon parce que ñun si suñu âge dañu am ay questions yu ñuy posé wu duñu xam fan exactement lan la ñu bëgg a def yan yan lan la ñu war a yan filière la ñu war a intégrer pour euh, atteindre suñu objectif et tout te journée bu mel ni tey tax nañu am réponse si suñu question ñu gën a xam li ñu bëgg a def et tout ça.